chef de service yi fi daje ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ñu ànd ak sunuy rakk di sunuy sang jiital ci sëriñ Moustapha Al Amin teg ci sunu turandoo Mouhamadul Habib si ibnu sëriñ Babacar Mansour teg ci sëriñ Abdoul Hamid si ibnu sëriñ Abdoul Aziz Al Amin ak sunu mag ji nga xam ni ñoo moom ñoo bokkoon jataay bi di sëriñ Babacar siise waaye ànd koog it sunu rakk di sunu jaam wala sunu sang di Moulay Abdoul Aziz Diop ñu àndanteeg comité bi nga xam ni ñoo yor organisation bi te maam Ousmane Samb jiite leen di waa COSCAS ak bokk yi ci ànd yépp ni ko sëriñ Moustapha waxee noonu rek la amee sëriñ bi moo waxoon nañu ñëw fekk si leen comme nañ ko daan doxale na ngeen ko daan defe déglu leen bokk ak yéen liggéey bi ñu am ci satisfaire am ci satisfaction totale kontaan ci déroulement bi ak ni ngeen ko doxale depuis ca de ci Tivaouane ba ba tey yabaloon préfet ñu ànd ak moom ci liggéey bi ba ñëw tey fekk si la liggéey bi rafet lool ñu ni daal sëriñ bi ni woon nañu insister gërëm leen sant leen ci ànd bi nga xam ni ñi ngi koy ànd ak yéen ci région bi ak département bi waaye sant leen it yóbbante leen cant ci ki nga xam ni tey moom la fi yàlla teg te mu waral lépp muy le président de la république ci taxawaayam ci Tiwaawan waaye rawatina ci gàmmu gi sant it doomam di la premier ministre di monsieur Amadou Ba waaye sant doomam xaritam di la ministre de l'intérieur Antoine Diome muy sunu frère di sunu lépp monsieur la gouverneur sëriñ bi dafa waxoon ni du deñ mukk yëkkati kàddu te massawul jamono yii ñi nga xam ni ñi ngi loru ci ay xat-xat rawatina accident yi nga xam ni am na fi ci ginnaaw boole ceeg mbëkk meeg gaal yeeg accident de route yeeg ak yeneen yu yooyu mu ngi ñaan yàlla ña ca loru dem génn àdduna yalla na yàlla xare leen aljana Euh, di ñaan itam yu mel noonu yàlla na ko fi yàlla yemale waaye nee na mi ngi ñaan yàlla it gàmm gi ñu jëm mu nekk gàmm goo xam ne buñ ko defee ba pare yàlla na ci yàlla dëgg muy jàmmug réew mi ak dalug réew mi ak yokkute réew mi mi ngi invité ñëpp itam di wax ni maamam Seydil xaaji Malick day ba muy gàmm gàmmuwul woon pour folklore yàlla rek moo ko taxoon di gàmm ak di ci dabu bëggu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seydi xaaj malik nag ne alaa azimu leyla alwilaadati xisbatan ida lam yakun naxwa alxaraami udulu ndax wa mawliduhu bihi sharafun wa xiiru fa fi taadimi injaaxu sujuni nee na màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na fa fi taadimi injaaxu sujuuni nee na màggal ko bénéfice la xéewal la lépp la gàmm gi nag sëriñ bi nee moomu ko yoonam nekku ci kan moo ko moom yonent bi nee na sañse leen rek te ñëw li ci des yépp yonent bi dina ko def nee na solu leen nee na ku tëdd ba amoo paas sax xamal ni di am paas mi ngi ñaan yàlla balay booba yàlla bu ko kenn wute moom itam yàlla bu mu ko wute moom ak ay rakkam sëriñ bi waxoon na ba la tëj suñu kàddu nañ ci profitoo sant sénégalais yépp yi nekk ci biir réew mi ak bitim réew ndax bu yàggul ay fan yu néew ci ginnaaw dañu woote woon ci ndigalu sëriñ bi doon jël am lu ñu doon laajaatal jumaa ji waaye ci guddi gi Sénégal yëpp àndandoo def teraanga bu rëy yamuñu ca waxtu yi des ci ñun ñu joxe ndigal ni nañ dolliwaat waaye ci à l'espace de trente wala une heure de temps ñu tegaat cinq cent et quelques te loolu yëpp ñu def ko ngir yàlla defal ko Seydi Hadj Malick sëriñ bi nee na bu ñu fi jógee te waxuñu ñi ko def jërë ngeen jëf yal na yàlla fay leen te yàlla dolli leen ñuy ñaan yàlla nag jumaa jooju ñu fekkee ko ak sëriñ bi ba mu ubbi ko moom ak rakkam yu tedd yi Seydil Hadj Malick ak sëñ Babacar Abdou ak seeni rakk ak seeni njaboot yépp di ñaan képp koo xam ne yaa ngi jëm si Tiwaawan na ànd ak yar ak teggin ak dal ak xorma ak jox bés bi li mu moom ak jox guddi gi li mu moom ak xam kan moo tax ñu jóg te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ziar ñëpp di ndokkeel ñëpp mboolem kilifa diine boo xam ni yaa ngi ci réew mi sëriñ baa ngi lay ziara di la ndokkeel te di la wax ni bés bi sa bés la guddi sa guddi la mi ngi koy wax sénégalais yëpp di ko wax nag rawatina waa diaspora bi di ñaanal yàlla ñëpp yal yàlla fay leen jusiitum xayran wa kufiitum charran wa yuctiikum mayran wa yansurukum nasran allahu xalifatuna aleykum